les journalistes ici présents nous avaient toujours euh, accompagnés. Et pour revenir à votre question, je crois que le, cette sitting euh, rentre dans le compte de la poursuite euh, de notre combat, si j'ose le dire comme, comme ça, et aussi euh, à la sortie euh, du secrétaire d'État. Je ne sais pas si vous l'avez suivi, quand il parlait de la situation de DBF Et quand il disait exactement que nous sommes une société privée. Alors, euh, c'est par, pour cette occasion qu'on s'est réunis aujourd'hui pour euh, mettre la lumière sur tout ça. Et, et ce qui est sûr, euh, on va, dans un proche avenir, corser la lutte. Bon, vous savez, euh, vous n'êtes pas sans savoir que nous, on a beaucoup de stratégies, on a plus d'un tour dans nos sacs et que effectivement, on ne nous apprend pas à se défendre. Hein. Nous pouvons bien, bien, bien se défendre. Nous pouvons bien organiser la riposte énergétique et ça, dans un proche avenir, si rien n'est fait. Rien n'est exclu. Rien n'est exclu. On peut s'attendre à l'arrêt des machines euh, Rien n'est exclu. Euh, euh, rien n'est exclu. Rien n'est exclu. secrétaire d'État n'a-t-il pas raison sur vous quand il dit que c'est juste une minorité qui s'agit Mais c'est ça, c'est ça la réponse. Euh, on en saura davantage dans les jours à venir. Ce qui est compliqué dans cette situation, c'est effectivement euh, Vous l'avez suivi avec moi. Hein. Euh, Abdou Nene Sall n'honore pas la République. Abdou Nene Sall, euh, à la limite, je me demande, euh, est-ce qu'il a fait les bancs Parce que nous, en tant que primériens, il y a des choses, on n'ose pas le dire dans un Sénégal euh, actuellement au niveau où vont les choses. Mais vous l'avez vu, euh, vous l'avez écouté. Malheureusement, il faut éviter ce genre de personnage quand on a une bombe avec toi là lui il a une bombe là mais malheureusement personne n'est une bombe qui éclate là Babacar du la fi bàyyi de ñëpp lay rey je crois que en ce moment nous on fait tout pour euh, un peu le ménager un peu di ko jéem a nax pour nangu bombe bi parce que sinon euh, ça va il va faire extrêmement mal. Ah, je sais pas si c'est le président, si c'est le président, ah, il n'a qu'à rapidement retirer la bombe, sinon même lui, il va exploser, Votre le président. Là, on peut décrire également les conseillers ferroviaires qui sont aux côtés de l'État. C'est la même euh, qui était là sous le régime Wade. Mm. Apparemment, les sont, ceux-là qui sont en train de mettre un peu en péril l'entreprise. Oui, oui, effectivement, on ne comprend pas. Ce sont ces mêmes gens qui ont privatisé l'entreprise qui partaient partout, à Bamako, partout. Ce sont ces mêmes gens qui demandent à l'État de reprendre l'entreprise. Et puis, ce sont les mêmes gens qui font tout pour fermer l'entreprise. malheureusement, c'est ça, il a raison. Et je crois que comme ils avaient parlé pour euh, euh retirer l'entreprise de, des Toubab, là, ils vont peut-être parler pour remettre l'entreprise sur les rails. C'est ce que je pense. Mais, mais qu'en est-il justement des salaires du mois de septembre Rien du tout. Si je peux vous expliquer, les cheminots sont répartis entre différentes banques. On a essayé un peu de nous endormir pour payer une infime partie. Si vous ah, partez, bon, je vais, je pourrais En tout cas, la plus grande partie des travailleurs sont domiciliés à la Société Générale de Banque. Et n'a pas vu de la de l'argent. Si vous êtes à peu près 300, on paye 22, on vous dit commencé à payer. Mais jusqu'à présent, il n'y a rien. Moi, moi, moi, moi, il n'y a Il n'y a qu'un jeu de dupes là qu'ils sont en train de faire, mais nous, on ne va pas se laisser faire en tout cas. Un plan de liquidation pour les entreprises en difficulté, vous pensez que DBF n'est pas épargné Ah, nous, nous sommes en difficulté. En tout cas, si on dit qu'on va tuer euh, des Sénégalais et que tu es Sénégalais, je vous retourne la question. Déjà, il un plan de relance, n'est-ce pas, de, de, de, fer. Donc, est-ce qu'on y a un plan de relance Mais je voulais bien qu'on le plan de relance, Samba Un de on ne l'a pas vu. Politique ferroviaire, zéro. S'il y a un plan de relance, l'État a échoué. L'État a dans sa politique ferroviaire. Ça, je le dis et je le maintiens. en tout cas à travers son secrétaire euh, d'État, Ndene Sall. Vous le voyez, vous, vous le constatez avec moi, il fait tout sauf du chemin de fer. Lui, là, il ne fait que de la politique. On a vu les, les, les jeunes qu'il a euh, embarqués tout récemment. Mais ça, ce n'est pas bon. Ça, mais, mais moi, je vous dis que si réussir, je donne ma tête à couper. Parce que je suis, je suis sûr qu'il s'en va à Dakar. Quand il veut aller à Dakar, il prend le, le, la direction de Tuaon, il ne reviendra jamais à Dakar. Ça, je suis sûr. élection, avez par euh, l'administrateur ou bien de ses collaborateurs a été par euh, son adjoint, Ndaraou euh, pour lui faire part de notre sitting, je crois qu'il a bien compris et que effectivement on avait dit deux heures. il va nous excuser peut-être parce qu'on a peut-être dépassé de 20-15 minutes, mais c'est comme ça le, la revendication. Bon, il y a, y a le, a bah, bah, le... Il se trouve que le personnel... Non, non, attends. Le je personnel voulais... a répondu massivement. Bon, je voulais vous dire... Voilà, c'est ça, très bien. Je voulais vous dire, je voulais vous dire que le message a bien passé. Mais comme vous le voyez avec moi, les cheminots qui n'ont pas perçu, comment vous voulez qu'ils veulent répondre à, à l'appel c'est des gens qui sont partis, parfois Kemandé, ou parfois voir un parent, ou voir un Babacar, ou un Sambadjaï, pour le, le, le, le pour, pour, pour, pour, le repas à midi. Donc, mais ils sont de tout, tout cœur avec nous. Mais vous savez, le chemin de fer, ça toujours comme ça. toujours comme ça. C'est l'élite euh, très souvent syndicale qui se bat. Et vous verrez sous peu, vous verrez sous peu, s'il si, si, n'y a rien, vous verrez quand on va arrêter les trains. retraite, est-ce qu'il y a un Justement. Mais il rien du tout. C'est ce que je vous dis. Il n'y a pas de politique ferroviaire. Je crois que ça, c'est amplement suffisant. Pas de politique ferroviaire. Donc, on s'en va directement vers euh, l'enterrement de première classe du chemin de fer. Euh, salaamaaleykum man la Cheikh Diène tey sunu woote bi woote la boo xam ni pour euh, yëgal nit ñi sunu tolluwaay bi ak li nga xam ne moom la secteur d'état bi wax bërki démb xamal ko ne ñun loolu mu wax moom la engagé kooku ñun président Macky Sall liñ koy laaj parce que moo jalaat entreprise bi ne da koy nangu si ñu ko yore woon Sénégal jël entreprise am te bu fekkee ni ministre am mooy taxaw ne li Macky Sall wax amul moom li fi nekkoon moo fi nekk bi léegi loolu question boobu dinañ koy dinañ koy laaj président de la République bu ñu jàkkaarloog moom parce que ñu koy demande audience lu ko suñu camarade bi waxee. li si gën a doy waar tamit mun a ñu tey maa leen di wax ni service quatorze trains lay def par jour aller retour service Dakar te saxaat gi balaa muy génn service bu si semino yi waxul du génn bu eggee Dakar Bel balaa muy génn. bu si cheminots yi waxul du génn GCO dina def quatre trains par jour bu semino yi waxul du génn PTB rotation ñëpp xam nañ ko cinq heures du matin lay jóg ba dix neuf heures vingt kon bu cheminots yi liggéey woon kon loolu du daw kon moom mi nga xam ne moom lañ dënk raay bi def naa xamul liñ ko denk lan la boo ko xamoon kon du laaj ndege ñi ngi liggéey wala duñ liggéey mu toog barki démb si télé bi. moo moo waxal boppam cheminots yi ku leen jox ñu liggéey jox nañ leen ay pièces génn nañu 22h07 mi ngi noonu di dugg Kidira te bu mu wax mi ngi dugg Kidira mi ngi dugg frontière ba boo temps machine baa ngi kon kooku laaj na président de la République moom la ñu jàkkaarlool moom mi nga xam ni moo jëlaat semaine de fer moo jël semaine de fer ne da koy defaraat ñun yaakaaroon nañ ni ba Ablaye Wade ñëwee fekk PTB à genoux mu jël pete PTB jënd ay machine train yi ngeen di gis jënd ay raam jënd lépp ay machine be jox ko PTB ñun yaakaaroon nañu ni Macky Sall bu depuis 2003 mu nekk si gouvernement bi génn ba nekk président daal bi xool fee yëpp xam ne chemin de fer dañ ko war a defaraat ñun yaakaaroon nañu tey nee mu def dem dikk noonu lay defaat suñu kër gi mais ñu gis ni ñoom 7 milliards 5 yi nga xam ne moom la ñu wax sax mënuñu ko respecté ñu xool ne. seen sept milliards cinq yëpp un mille un milliard deux cent millions yi si génn bi ñu leen laajee mooy sunu salaire lu ñu jox fi mu lu ñu jox rek si salaire lu ñu ko dugal lu ñu wax rek ñu ne salaire kon ñu yaakaar ne tey kon kii ñu dénk bi ah te ñoom ñu wax ne am na ay conseil ferroviaire yoo xam ne ñu ngi fii depuis 2003 bi ñuy privatiser groupe goo xam ne ñooy conseil ferroviaire yi ñooy wax état yi lu lu chemin de fer war a doxee ak lu ñu war a taxawee conseil yooyu ñoo àndal nag Ablaye Wade ba Ablaye Wade lajj si chemin de fer tey Macky Sall ñëw ñu jamati ba dindi privatisation bi ne bëggoon nañu dàq trois cent soixante seize personnes ñu xeex ñu bëgg a yóbbu ñu ñu euh, kon ñu bëgg ñu yóbbu ñu xeex ñu bëggoon def liquidation judiciaire ñu xeex maliens yi ñëw fi ñu ànd ak juróom moomu di gën dem si ministre bi xuloo fa xeex fa ñu génn si te ñu retourné waat état bi jël ko kon mani président Macky Sall moom la ñuy waxal conseil ferré vert yooyu koy conseillé lan la koy conseillé si chemin de fer mais chemin de fer amul sax politique ferré vert dégg naa léegi ngeen ko laaj sama camarade bi tey politique ferré vert tey bay xool entreprise bi ñu naan deux cent deux cent ou trois cent personnes ñu ngi retraité entreprise boo xam ne ñu ngi ne nit ñaa ngi dem fay ñu leen seen i retraite formation doo dégg ñu wax ko mais ku bëgg a defar chemin de fer da nga am un plan. defe naa conseil ferroviaire yooyu tegaw la guñ guñ état bi plan boo xam ni war na si mën a taxaw liggéey kon nag ñu ne président Macky sal ah nu xoolaat ñi mu jël teg leen foofu ñu koy conseiller si chemin de fer ñun jaaxal nañu. mais mel gi déggaguñ seen xëbalaate léegi faalewu la. non dégg nuñ ko dégg nuñ ko walay xam senegal Sénégal xam bu njëkk. chemin de fer lu mu daan wax yëpp si biir biir biiram la koy wax si biiram li ñu daan doxee chemin de fer bu njëkk léppam si biir la koy mais chemin de fer bu mu demee génn si biti la ñu commencé am problème moo tax état yi Mbacke Sall jëg leen na de moom xamul ne amul benn porte sotti bu dul chemin fer lu mu def te defarul chemin de defarul dara moom amul fekk na bu muy bu muy dafa ñëw fekk chemin de fer taxaw mu ñëw fekk chemin de mu nekk xale. ànd fi ñu yorowoon chemin de fer en 2003 mu xool bi ñu koy privé si kanamam la mu nekkoon si gouvernement bi te mu joreet dëkk bi bu defuru chemin de fer ah y' a problème ah bari na fi ñu jëm si chemin de fer bari na. xeex bi fi si jëm bari na sëñ bi ñun wax naa ko keroog union régional lu day na chemin de fer non train ne souffle pas d'autres trains soufflent xam nga ne suñu si jógee beneen train dootul souffler kooku sax saxu amul sax wax dëgg dëgg. suñuy pexe beneen terrain dootul soufflé du ñu xeex du ñu dóori dàll du def dara mais beneen terrain dootul soufflé am nañ suñuy pexe moo tey moo tax tey suñu sitting bi beneen terrain dootul soufflé suñu suttale fayeeku fayeeku wuñu man maa ngi nii dara zéro franc oto amul gaz te fi mu ne Dakar lay retourné demal belleer dem leen belleer foog foo suñu camarade boo doon defee assemblée générale cimetière la ñun yaakaaroon nañu président Macky Sall bu njëkkee ñëw bu jëlee chemin de fer lu mu njëkk def ñu ko jëlee patrimoine chemin de fer boo demee Bel Air dañ ko jël partout ay magasin si biir gare bi fi ñuy liggéeye ay conteneur ñu fay garé seen oto yi ñun yaakaaroon bu jëlee chemin de fer raay bi ni ñu ko envahiré ak lu ñu xam ne patrimoine am la état bee ko moom dina si taxaw loolu yëpp taxaw si. Cheikh Diène yaakaaroon na yi benn lañu mais tey am na ñeneen ñu féete nguur gi. ah ñooñu dañ ñoo xam. ñun de ay cheminots ñu toujours semino man sama baay cheminot la ma nekk semino j'ai des frères cheminots j'ai fait presque trente ans xaw ma quarante de service chemin de fer rek laa mos a liggéey chemin de laa xam. xaajaloo boobu dina yombal euh, xeex xaajaloo boobu nga loolu lu ko waral sunu camarade wax nañ ko léegi ku ñu jox réseau ferré vert wala nga ñëw tàll raay bi raay bi dafa jub nga ñëw bëgg a dëng raay bi moo war xaajaloo bi am diviser nit ñi raayu chemin de fer dafa jub Dakar kii da ngay génn si amul braquage. karaa ngay dugal mooy yóbbu boppam nga ñëw nekk njiit ñu jox la lu day ni chemin de fer nga war ko doxal ngay jéem a def yéen ñëpp nga gisoon kër bu mu ñëwee de fer ñun ñëpp àndandoo syndicat yëpp ànd bu muy def conférence de presse am non bu muy def kii bu mu doon def télévision nationale gis ngeen nu mu demee émission ba débat ba gisul leen ñu fa laajul leen ñu loolu tax xamuñu ko ku doxee noonu nag ay affaire am di